aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maolana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima rabbi sarx li sadri wa yassir li amri waxlul xuqdatam min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi seetaan seen site internet bii di Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen ñaanal jàmm di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun ci présentation bi ci kàddu gi ngeen jàkkaarloog moom seen mbokk Arona Cissé ki ñu féetal ci wàllum caméra bi di Abdou njaay ak Cheikh Sambou di jëfal suñu naataangoo Alaaji Gora Seck foofu ci diwaan bu Argentine te di ko ñaanal jàmm bu baax di ko ñaanal suñu borom defal ko tawféex ci ah, liggéey bi di wax mbokk yéen ne Touba Argentine TV door na ab liggéeyam fii ci diwaan Sénégal incha allahu taala danañ yaatal suñuy jéego ba suñuy bànqaas ba mu law ci euh, Sénégal gi yëpp incha allahu taala fépp fu ko waay soxlaa rek euh, danañ fa yaatal suñu ay jéego. Euh, mbokk yi nag tey ñu ànd ak koo xam ne yaakaar naa tey dootuñ leen ko présenté ci réewum Sénégal macha allah ci mbaaxam yaram ak ay tegginam. ak tamit eh, yàlla eh, may gum ko may ci li muy yëngu mu nekk jànkatu xasida bu mag boo xam ne eh, bu ñëpp ràññee ab liggéeyam la kooku mooy Serigne naa Mbaj di jànkatu xasida bu ñëpp ràññee macha allah mu dëkk fii ci diwaan bu Touba Soura Serigne naa Mbaj moomu nag moom la ñu àndal tey fii ci jumaay Touba ci diggante armeel yi ak barabu sëriñ Saliou Mbacké foofu la ñuy amalee jataay bi kon xam naa du guddal rek incha allah dañuy jaar di jox Serigne Cheikhouna Mbaj euh, mu daal di nuyoo ubbee xasida rek incha allah ak xasida gu di doon rek mu ubbee ko jataay bi ñu doog a dugg ci liggéey bi kon Serigne Cheikhouna tafadal maskura euh, Touba Argentine TV ñi ngi lay wax asalaamaaleykum wa sukri liman kulli bi sara loori dan doona suux عند زرزار أمني وزوق لمن كل بسارة لو ردا دون سوخ عند زرزار لو سناء ورد وعين بلا شغد مسعدني من بيني دائما أنسارك إلهي كل لدى أبار مكرمات من أرض النوافي أجم من زارك لله كل لدى أبار مكرمات ملارت النوافي جم من سار إلى الذين إلى سر سرخ القصيد شيارتي فريخ دارين أو زارا إلى الذين لا تعرزار خلق زيد سيارتي فريخ دارين أو زارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون ok salaamaaleykum Serigne Arouna. waaleykum salaam wa rahmatulah. noo ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel seen site bii di Touba Argentine TV euh, di leen siyaare bu baax a baax euh, di ñaanal Serigne Sidi Mokhtar suñu borom yàggal ko fi loolu te ko ak mboolem njabatuk Serigne bi waaye di la nuyu bu baax di la siyaare siyaare itam Serigne Gora mi nga xam ni mooy jëwriñ ji euh, Serigne Cheikh Samb caméraman ak Serigne Abdou Ndiaye di siyaare mboolem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel site bi te am mbégte ci dalal gi ñu dalal tey ji mm-hmm. jërëjëf ñoo ngi lay déglu waaw. incha allah Serigne Cheikhouna Mbaj la euh, di jànkatu xasida bu mag bu ñëpp ràññee ab liggéeyam euh, mu koy teg ci yoon macha allah di ko sellal bu baax ñu koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex boo fépp fu mu bëgg àgg ci xaside yi suñu borom subhaanahu wa taala eggale ko fa sëñ Cheikh na da nga ubbee daaj bu yéeme daaj bu neex lool mu mel ni sax euh, mel na ni ci daaju mag ñi la bëggoon nañ xam daaj bi rek euh, daaju kan waaw daaj bi ñu bari ñu ngi ko gën a xamee ci sëñ Moussa Diop daan jàngal sëñ Fallou euh, moo ko moo daaj wala bokk ñu bari ci moom lañ ko xamee nga jàng yi itam léeg-léeg daf ci am daan jàng daaj yoo xam ni mag ñi yàggee ñoo ko daan jàng ñu jël ko ci ñoom waaye ñun kiñ ko gën a xamee rek daanaka waaye ci moom daal la gën a siiwee la gën a siiwee mhm. ah, daaw daaju sëñ Moustapha Diop mhm. ah, moom la Mhm. sëñ Cheikh na su ko defee rek euh, njàngum xasida mi ci la la ñëpp ràññee mhm. bàyyi la ci xel lool macha allah euh, ci diwaan bu Sénégal mhm. <clears throat> ak lenn ci ay gox ci bitim réew euh, nga fay amal ab liggéey ñëpp ràññee la ci njàngum xasida moomu bëggoon nañ xam foo ko dooree ak lenn ci say jaar-jaar ba ci fii nga yegg si rek incha allah. waaw njàngum xasida bi ma koy door 88 89 diggante boobu la. ma door ko itam ci sama kanamu waajur fekk booba moom itam mu ngi jàng xasida eh, di ko def ci njàngum kuréel mi eh, ak itam rajas di sëñ Mayib géey waaye jamono yooyu laa ko door eh, kon léegi mu amee ay fan bi ma ci nekkee itam dox ab diir sëñ Xaadim Guèye laa ci àndal ñu ci bari ci moo ci ginnaawam lañ ma xam euh, ma nekk ci ginnaawam ay at ñaar fukki at yi xam naa ni euh, bu manqué bariwul euh, ma nekk ko ci ginnaawam ba yàlla dogal ñépp ñu ci ëpp dégg ma itam ma daal eh, ànd ak sama kuréel wéyal waaw booba ba léegi maa ngi ci nab nabi Euh, maa ngi ci sant yàlla bu baax itam euh, tey ju ne euh, ëllëg da koy gàcceel. Mhm. ñu ñaan suñu borom gën a dolli loolu. Mhm. Ah. sëñ Cheikhouna ci ban xasi gan xasida wala boog ban wolofal ci ci ci la siiwee ndax kenn ku nekk rek am na escalier yooyu jaar ba mu yóbbu ci kaw ci ban gan xasida wala ban wolofal ci la sëñ Cheikhouna jàng rek mu neex nit ñëpp ñu ràññee waaw sëñ Arona loolu. Euh, wolofal soxna jaare la du moom laa jëkk jàng ci band sax waaye euh, ndax maa ngi jëkk jàng kasetu suñ Mbàkke soxna loo wolofal sëñ Mbàkke soxna loo 2005 laa ko jàng waaye 2011 la jàng soxna jaare bi euh, nag mu daj ñu ci bari waaw waaw ñi ci ëpp ñi ma xam mhm. ci loolu lañ ma xam mhm. waaw ban wolofal ndax muy wolofal soxna jaara euh, bi sëñ Maam Mor Mbàkke xam sa diine defoon. mooy bi mu naan ma jóg te tëgg lay bayit maam jaara sa jëf ju rëy ku ko xam sagwaara dang njàngum euh, waaw mu doonoon daaj boo xam ne itam ba tey bu ot bu ñuy dem poroxaan euh, da ciy ràññu lool ci yoon wi sëñ Maam Mor moo ko bind mhm. benn wet gi bi ci des soxna ami seex mu sëñ Touba. Mhm. moo ko bind mhm. mooy bi tàmbalee sëñ Fallou. waaw nooru naa la noori min noori yu nawiru naa. Mhm. boo soxna ami seex mu sëñ Touba moo ko bind. bëggoon nañ xamit euh, wolofal yooyu ak xasida yooyu ngay jàng air yi neex na lool macha allah ñëpp koy bëggee. ndax sëñ Cheikh naa daaj yooyu daaji boppam la wala boog dafa am ñenn ci mag ñi ñu muy roy. daaj yooyu moom samay daaj la daaji awu yooyu dinaa di roy nag ndax roy moom mënta ñàkk. te itam mag ñi seen seenum njàng dafay barkeel. Mhm. am solo itam lool euh, dëggu euh, te pëstéefoo. Mhm. danaa darooy seenum njàng ñu ci bari euh, bàyyiwuma ci kenn. Mhm. waaye itam daaj yi ci ëpp nag may jàng moom sama daaji bopp la yoo xam ni ñoo koy xalaat. jàng ko wala ñu jàng ba mu dikkal nu. nu nu ñu nu continuer ko. njàngum xasida mu njëkk ma ak mi léegi par rapport boo ñu ko doon jàngatal différence différence bi lan la. différence bi waa am na différence tuuti. ci eh, niñ daan jàngee bu njëkk xam nga matériel amul woon booba. njàng ma dafa metti woon. lool sax. dañ daan jàng bu ñu xaaxtandikoo deret rek ay génn. te loolu xam nga ni ku ne xam na ni metti na. ndax nit da daan jàng fii ay kilomètres nga di ko dégg. waaye nag boobu comme dëkk bi fàttewul nii. Eh, ab àll lay doon daanaka euh, dëkk bi fàttewul nii. Mm-hmm. li ko wuutale njàngum léegi mi nag mooy eh, dañoo am matériel. Mm-hmm. Euh, te loolu itam defe naa ni yàqu ci dara ndax euh, mbir moo gis mu nekk. ñu di ko def te mënuñ ko ñàkk a def buñ ko defee ci nu métti rek lu ko jàppandal dafa nekkul lu ko jàppandal buy ñëw loolu nag jàpp nañ ni rajo yi ci la bokk rajo yi xeeti rajo yi nga xam ni am na léegi sonorisation bi moom dëgg la faaw mu metti waaye nag coono ba ba daan am bu njëkk moom amatul. Mm-hmm. Uh, loolu nag technologie kii bi moo avancé rek. jamono ji yaatu na bu njëkk ay néegi ñax a fi amoon. léegi mm-hmm. étage chef yi nekk ak kii. waaw <laughs> noonu la ci wàllu wolofal yi uh, ban nga gan ban wolofal nga mujj nga mujj jàng boo xam ne uh, bu ñëpp ràññee la ci jamono ji. waaw bi ma mujj jàng soxna jaara la moom itam ndax itam man dama sasoo at mu jot mm-hmm. ma jéem a fent ab daaj ci soxna jaara. ci ndimbalu sëñ Maam Mor xam sa diine nga xam ne at mu jot moom itam mu def ay bayit yu bari ci soxna si daan def ay fanweeri bayit ak ñett dundu soxna si léegi daanaka day def juróom-benn fukk ak juróom-benn nga xam ne daana day mat kaset moom mm, at mu jot mu di ko sosoo man itam soxna si li mu ma defal man itam ma fas yéene fekk maa ngi koy man at mu jot màggalu Poroxaan ma jéem a fent air bu bees. Mhm. du ma daajaat damay fent. Mm. waaw. ñaan mu mu gën a ubbi suñu xel ci loolu. Mhm. yéene ji am nañ ko. Mhm. te itam soppe yi waxtu wu jot sax. bu ma ko jàngul sax dañ ma koy laaj lu tax defoo ko. ndax ma xam ne nag dama war. man itam jéem a laxasaayu. takk sama ndigg. ameel ko bor muy bor ci sama digganteeg soxna si. tuuti. waaw bu ren bi bi eh, ma jàng eh, ren ji jàll ma dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaara ki jalooreem nu waat ma dellu kañaat sulliwaat ndami soxna jaara ki jalooreem nu ñaaxuwaat te tànq ci géejëm gi saxoo duusu gi yëpp wet te ci xeewal yi ko wër dellu si duwaat nawet baa ngi waamew yàlla waa ngi diwal fu ne looy tax mu sax meññit te loo gëm si xiwaat ku dëkkaale ak yàlla ngi nii bàjjo baa ngi nii ku rëy ay jaloore ngi nii di xudwetu saalihaat lu jim njaaga maam jaara di njaag ummu sayxana borom ndab lu fees lii dell kuy ñëw di regg xaat samam kooma ngi sandamba ngi soxna jaara di ko day di waaj taay wow ku koy waaja taaruwaat ku man góor ku raw kaa ngi ku rëy cër ku màgg ngi ku am yitte ak pëste fa ngi tey ku sàmmwaat te sàmmoom ga ak njaxlaf ga yin moo di gànjaram ndewa saa bi xoona saa bi xoona ko daggiwaat waaw loolu leen la ci hmm. ni ma koy jàngee léegi nag moo gën a waaw boobu sëñ Mamour ko bind hmm. moo ko bind ci jamono yële la moo la ko bind nag bokkut ak bi mu bind daaw boobu benn bi rek laa jàngoon waaye des na beneen boo xam ni eh, xam naa ñu ngi koy waajal incha allah oh, waaye eh, njàng mi koy jàng léegi nag da moo gën a rythmé wu ndax dañ koy ànd ak kuréel bi. Hmm. duñ ci gunge. Hmm. def suñu kii waaw waaw hmm. ah. ma koy doog jàng nag nii laa ko jàngee. Ah, léegi nag dafa gën a kii daal Mouride waaw. macha allah suñ suñ suñ naa bëggoon nañ xam it euh, comme macha allah say programme ci bitim réew. Mhm. Euh, ci Sénégal sax laa bëgg a wax euh, maanaam macha allah yaa ngi dem fépp ci biir Sénégal mhm. waaye ndax bitim réew it suñ naa ab liggéeyam jot naa yegg foofu la déet. dëgg la Sénégal ñu ngi fi dem ci gox yëpp bitim réew itam xëy na bareegul waaye fu mel ni ko dem naa fa ji ci kasu rajab gi. fédération daayira sëñ Fallou bi fa nekk sëñ Abo joxoon leen ci ndigal ñoom ren jii maa leen ko jàngal Gambie itam dañ fay dem ay yoon euh, waaye nag Europe moom demaguñ fa donte ñoo ngi ak bëgg-bëgg bi ña fay nekk itam am nañ ci ñu ci bari ñoo xam ne am nañ bëgg-bëgg bi xëy na lu yàlla tuddugul la waaye ñoo ngi ci aw yoon euh, bu ko yàlla dogalee rek euh, xëy na jombul balaa yàgg mën nañ leen a gane ñoom ñu ñu organisé woo ñu fa. ñi nga xam ne tey par exemple dañu nekk bitim réew soxla sëñ naa Mbaj bëgg a jot ci moom ci yan la ñuy jaar. waaw ñi nekk bitim réew ñoom xam naa ni dañuy jaar ci e, Moustapha Mbaj e, Facebook am site am Facebook am daanaka nga xam ne son yi may jàng yi ci ëpp moom. daanaka yëpp moom moo koy dugal ci YouTube bi. ñu ci bari foofu ñu ci bari dañuy kiyante ak moom. waaye ku ku ku ci jaar ci moom dana la jokkale ak man bu dee numéro am 76 017 15 43 boo jaaree ci moom rek dana fexe ba nga agsi ci man euh, ndax sama rakk la mu ngi jàpp ci liggéey bi moom itam euh, ku ni itam bu Moussa Diop bu dee réew mi ñu ci bari danañ jaar ci moom ñu ci ëpp itam danañ jaar ci man ñi jaar ci moom waaye moom itam mu ngi jàpp ci liggéey bi bu baax ñu koy sant moom itam. mu mel ni it euh, defoon nga wolofal bu am solo nga jàng ko muy wolofalu Cheikh Ibrahima Fall moom tamit bëggoon nañ nga barkeelu ñaari béy donte waxtu wi sax xam naa li des bareetul léegi tey ñu wara mën a yëkkati jataay bi. mu barkeelu ci tuuti kon. Cheikh Ibra Fall xam naa ni yaa tax ba murit yi ci Seyxu Bamba ñëla jiitu xamuñu Cheikh Ibra Faal xam naa ni yaa tax ba murit yi jëriñu ci Seyxu Bamba ñëla jiitu xamuñu Cheikh Ibra Faal xiiwal gi tuuru na te dootul jeexati ku naan ba màndi war ko santati nga sëy noon ku la bañ du yaatu ci àdduna ji ba kero muy xëy faatu xalilulaay yaay xaritub yàlla ke seydina doom jëddi ismaila ëllëg la mbir yëpp di leer ñu xam la Cheikh Ibra Faal waaju la gantu xam ni yàlla buur la añaan dafay lekk lu baax ni sawara di lekk mat sopp naa Cheikh Ibra Faal def le nii ñu màggal baabul muridiin okay mm-hmm. Euh, du fi xaj xam naa mhm. jotaay bi moo nu ko dul may. Mhm. Mhm. kon nag jeex naa xam naa rek ban euh, message ngay lancé ci euh, ndaw yi nga xam ne tey jublu nañu xasida yi ndax gis nañ ne xasida yi macha allah ndaw ñi jublu nañ ko bu baax a baax ñii di ko durus ñii di ko jàng di yëkkati. ban dénkaane rek ngay def ci ci ci ñu gën a wormaal xasida yi bu baax a baax ban message nga leen ciy jox. ñoom de xam naa ni li may wax sama bopp rek di ko digal sama bopp. muy xasida yi ñu koy faral di waxee euh, day liggéeyu mag liggéeyu mag moo xam ni euh, def cee liggéeyal yàlla ba mu nangu ko nangu ko leer naññi euh, kon tuut tànk bu yàlla dogal nga nekk ci muy nga di ko yëkkati wala nga di ko durus mm-hmm. war nga ko jox àq ji mu yelloo. doonte loolu boroom rek ko xam li mu yellool. waaye nag nga jéem ci sa kem kàttan. boo ko je boo ko defee rek wàcc. mu ñu ko yëkkati. lii sama kalaas gi. Euh, war di ci bàyyi xel sëñ bi fu ñu toll fu ñu ko yëkkatee fu ne war a bàyyi xel ni sëriñ bi mu ngi ci seen biir. kon yenn yu bari dana fa ñàkk. Euh, ndax itam ñi koy jàng bari na léegi. Mhm. ñi ko yëkkati bari na lool. dëgg la xëy nag bëgg moo leen ci dugal. Mhm. waaye nitam nit itam danay bëgg léeg-léeg loo xam ne du xam nu mu ko yore. Mhm. Euh, ñun nag. ay tuut tànk lañu. dañuy dañuy nab nabi di dàkk bëgguk sëriñ bi. Ah, ak bëggam nag jàpp nañ ni lu sell lu nekk ak bëggam la. Euh, jotaay yi ñu koy defee léegi nag dana danay doon problème ndax ñi koy organiser itam dañ cee am part de responsabilité. Hmm. ndax ñi nga xam ni ñooy xale yi di di di woo jàngkat yi bu ñu dajee war nañ leen di mën a ber hmm. berante donte nañ ko daan defee bu jëkk ci nettali yi ñu nettali ci sëñ bi. Mm-hmm. nga xam ni góor ñi ak jigéen ñi moom du ñu sax séenante duñ xam fu kenn fu fu morom fu kenn fu fu ku ne fa sa morom ne. Mm-hmm. loolu moom mënatul a nekk léegi. Mm-hmm. waaye nag comme jamono moo nu indi foofu. waaye ñu di ci def kem kàttan. fexe ba ber góor ñi ber jigéen ñi. yow mi jàng itam nga bàyyi xel ni sëñ baa ngi fi. boo ko defee yu ci bari. Euh, dana ñàkk. Euh, muy yenn xeet li ñu doog fo. fo dëgg na comme foo Euh, xëy na nit mën na jàng sax nga defeen day fo te fekk moom jubluwu ci fo hmm. loolu dafay naqaree sujet hmm. waaye nag euh, na niru na niru na gën a niru rek euh, dëgg hmm. waaw waaw waaw nit kenn du ko siise ba loolu kenn du ko def waaye nag na gën a niru dëgg na gën a na gën a pasteefu bu ko defee yaakaar naa ni ah bëgg borom moom boroom moom danañ ci am mbégam donte moom dana xam ni danoo bëgg rek. Mhm. waaye lott nañu. Mhm. waaw di mhm. eh, ci yaakaar itam ndimbalam rek nag. mu duñ ci gën a dimbali. di ñu gën a xéer ci ñu di ko sellal. ndax ñu mën a daje ngërëmam. loolu daal laa laa amoon lu may wax. di ko wax sama bopp. di ko wax itam sama morom yi yëkkati. Ah, duruskat yi itam. Ah, ñu gën a sellal mbir mi ndax ah, xasida Euh, yor ko di lëcc lëcc ak moom dëgg la nit ki lu mbëgg bëgg muy nekk ak moom mm-hmm. waaye nag euh, am na ci bërëb yoo xam ni nañ koy bàyyi xel bu baax euh, xasida mën ngay durus ba bay naaw ci kaw jaww ji te kenn du xam ne sax durus gën nga mm-hmm. ndax fa nga tëju mën nga ko faa def te kenn du la gis mm-hmm. am na ci yenn yoo xam ne itam kenn dootu xam lu muy niru waaye nag lépp bëgg lu baax la Euh, ndax itam jamono tolloon na foo xam ni ñun jiitu woon mag magi démb ya mhm. ñu ci bari nekkuñu woon ci lii mhm. loolu moom lu wér la kon nag gone tey mhm. bu leen yàlla xiree ci xaside yi nañ leen ci encouragé dëgg la gone moom lu mu dugg rek gone fenca waaye nag nañ leen ci encouragé rek te bañ yenn yenn baat yi ñu leen di teg ñu wàññi ko bu baax a baax. ñaata lay àndal ci kuréel gi moom kuréel gi nga xam ñi ngi koy jàppale ci wàllum njaa aw meeg yu mel noonu. waaw kuréel bi nag euh, amul ab àpp boo xam ne fa yem ndax léeg-léeg nag ñu limité ko tuuti waaye nag doonul loo xam ne fi ab lim dañ boo xam ne bu fa accès dafa war a yem ndax itam xam nga euh, léeg-léeg nit ñi ñëw bari léeg-léeg ñu néew ndax itam période lii lay doon ndax ñoo xam ni xasida yi dañ koo def nii rek dañ koo bëgg hmm. di ñëw di ci ànd ak yow waaye am nañ meneen métier nag ñoo xam ne xasida yi moom lañ def métier dañu ñëw di ànd ak yow foo nekk ña nga fa foo nekkul ñu dem toog mm-hmm. ñooñu nag moom ñooy ñu fidèle ñi ñi nga xam ni toujours ñu ngi fi ñenn ñi nga xam ne léeg-léeg dañ ko booleeg dara léeg ñu ñëw léeg-léeg ñu am ngànt euh, kon moo tax wutal ko lim du yomb mm-hmm. waaye nag euh, takku na fi ne wax dëgg yàlla bari na itam ñoo xam ne dañuy bëgg ñëw di ànd ak man leen mm-hmm. ma leen naan nañ ñegandi ko tuuti rek mm-hmm. waaw wàllu ci wàllu daayira euh, bëggoon nañ xam daayira yi maanaam soppee sëñ nangam am na soppee sa jànkat nangam am na sëñ Cheikh Naama est-ce que soppee yi ber defal nañ ko daayira boo xam ne ñu naan soppee sëñ Cheikhouna Mbathie wala yu mel noonu est-ce waaw daayira soppe yi moom ah, daayira soppe moom ba ma koy am defe naa boo ko kii ak léegi ñaar fukki at yi tuutee koy manqué. Hmm. waaw ñu ko jëkk am ci Touba bokk. sëñ Cheikhouna Mbathie waaw ñoom itam booba ak léegi bàyyiwuñu. Hmm. ndax ah, bëgg nañ ko def lu yàgg ma gàntu ko waaye ñoom itam ñu xamal ma ma lii kat daf daf day ñoom day ñoom seenu sas. Euh, ñu mujj ko jaaree ci bis boo xam ni maa koy def di ci sant Serigne Cheikh Gaynde ma ñu ni bis boobu lañ ko bëgg a jaaree bu ko defee lu ñu am bu boobaa ñu jox la ko nga defal ñu ko ca. Euh, ma ànd ci ak ñoom booba ba léegi itam noonu lañuy ñuy doxee. ñu ko benn sëriñ yow lañ koy jox. waaw ndax itam fan si club day am ci geneen wàll gi. ñuy dajale lañ am di leen ko dimbalee. ñun nag kon li ñu am ma kus néew am nañu daayiree sëriñ ña ngi ca bokk di ca def lañ ca war a def waaye bii moom yaa ko tax a jóg. man itam ma xalaat xam ni sëriñ bi la sëriñ bee tax ñu di ko def. ma nangu ko. dërëm buñ ma jox nag itam lekku ma ko donte bu ma ko lekkee lew na ma. ndax sëriñ bee tax ñu jox ma ko. te ci laa nekk. waaye nag dama leen koy defal ci bis boobu may def. Mm-hmm. Uh, ñëpp tuyaaba ja ñu bokk ko. Mm-hmm. am na ndaje mu ñuy wax it xasaay door jànkati xasida yu bare bare di ci bokk ak ay waxtaankat ndax Serigne naa Mbathie mas na cee bokk wala déet. waaw uh, loolu ba mu tàmbalee ak léegi li mu def defe naa ñetti at. Mm-hmm. waaye ren jii nag moom bokk naa ci. bokk naa ci ren laa ci doog a bokk. Uh, incha allah. di fa di ñaan itam. ñëpp ñaanal nu ñaanal ñi ci nekk ñëpp. xëy na ki nga xam ne moo ko initié. lu baax la ci jublu. yàlla na suñu borom dimbali ko ba yéenam ji. mu mot ko ko ba jàngkat yëpp mu fas yéene jox oto mu jox leen ko. Mhm. te lépp ànd ngërëmu sëñ bi. Mhm. waaw sëñ Cheikh na ndax ba mu dalee jàng ba léegi am na taalibe bu murit bu masa daanu rek yëkkati oto bu baax jox ko wala déet. waaw nag loolu moom xam naa amagul nag murid yi am nañ yéene. Hmm. am na ci ñoo xam ni li euh, seen xol buñ la ko mënoon a wan dana yéeme lool waaye nag kàttan gi nekku fa. Hmm. Euh, ñeneen ñi nga xam ne am nañ kàttan gi itam xëy na euh, bañuñu ko ña ngi koy def ci ay wet ci ci yeneen wet itam xëy na waaye nun moom loolu moo amaguñ ko xam naa. man naa am dana am dana dana ami waaye nag man moom damaa doon koo xam ni eh, damaa bëgg dëgg la nit ku ne ci yoonu sëriñ bi faw ñu di la defal am na ñoo xam ne taalibe sëriñ bi lañ sëriñ bee leen mën gan may leen wërsëg bu bari eh, ñu fas yéene koo delloo ci sëriñ bi ñooñu moom bu ñëwee alhamdulilah lu nu jox danañ ko jël waaye nag maa ngi maa ngi ñaan yàlla njàng mi may jàng borom ubbil ma ci bunt yoo xam ni. Mhm. naa ci am sama kàttanu bopp koo xam ni damay wëlbatiku man itam di defalaate mhm. waaw. su boobaa lan nga programmeel xaside yi. Ah, xaside yi xam nga yi moom mënee su ko programmeel dara ndax moom àgg na. ñun mhm. ñu ci nekk noo ci la ngaa mu ngir àgg. léegi nag bu boobaa. Ah, bu nu yàlla mënee gan ba. Euh, luy gën a luy gën a luy gën luy gën a. mu muccal muccal yëf liggéey bi rafet rek eh, fu fu nit fu foo gisee jànkatu xasida itam hmm. nga nawloo ko loolu lu ma lu ma gëm la. li ma ci jubloo wax ndax pare nga pour di ngir di mool ay di bindul ay xasida di ko moolu ngir liggéey bi di gën a yaatu wala de waaw waaw loolu lépp ci liggéey bi lay bokk. nga ubbi ay daara sax. Hmm. waaw daara. Eh, daaray xasida. Hmm. kàggu. yooyu yëpp ci projet yi la bokk. ay nag eh, ñu koy ñaan yàlla mu. dimbali nu wa man-man bi am fi ñëw man ko mottali. Mhm. kàddu yu mujj ci biir euh, jataay bi ak gan xasida ngay euh, tëjee rek. <coughs> jataay bi ak lan ngay wax ci site internet bi di Touba Argentine TV. waaw euh, Touba Argentine TV ñoo ngi leen sant ñoo ngi ñoo ngi nemmiku fan yi seenub liggéey. Mhm. wax dëgg yàlla mhm. yow mii surtout nga di ci dalal ay boroomi xam-xam. Euh, ñoo xam ne itam euh, ñëpp leen leen nawloo euh, loolu lu am solo la ndax itam sit yi bari na waaye am na ci ñoo xam ne itam duñ segg ñi ñuy dalal mm-hmm. ay yow nag gis naa ñi ngay dal mm-hmm. ay qualité lañu mm-hmm. borom xam-xam yu wér lañu ñoo xam ni tubaarkàlla ñëpp a leen nawloo. Mhm. loolu nag lu am solo la luy gën a jëmee site bi kanam la. Mhm. Euh, ñoo ngi ñaan suñ borom. yaay première jàngkatu xasida bi ñu ci njëkk a jël. ah mhm. waaw ah loolu tawfeex la tawfeex la ci man kon. Euh, ñoo ngi la ci sant bu baax itam ndax yow sunu xarit nga. sunu wëlëri nga. Euh, noo ngi lay ñaanal yàlla suñu borom kàttanal la. bu sa mu sa yéene suñu borom mm, kàttanal la nga mottali ko. di siyaare itam sa waajur Baye Fallou Cissé ñëpp xam ko. ci réew mi ne. Ah, di ko ñaanal yàlla moom itam. waaye itam sant itam sëñ Gora mi nga xam ni. Mhm. mooy jëwriñ ji. Mhm. Euh, sant itam sëñ Cheikh. ak sëñ Abdou waaw sëñ Cheikh Samb ak Raman sëñ Abdou mi koy jàppale mhm. ñëpp rek bàyyiwunu kenn mhm. mboolem ñi koy bàyyi xel ñu ngi leen di sant bu baax a baax mhm. euh, tey ñaan ngeen daje ci ak ngërëmul sëriñ bi ndax xam naa ni moo leen ci bàyyi euh, yàlla na ngeen ci daje ngërëmam tam ci teraanga ju bëree bëri <laughs> waaw xam naa euh, waaw maa ngi ci ay ay ndax ñun moom daanaka amunu dallu foo toll suñu xel ci luy jëmale liggéey bi kanam. Mm-hmm. ci lan ci ci lañ koy joyal. Mm-hmm. amuñu beneen beneen beneen kii. Mm-hmm. waaw. nag nañ nañ xaar rek. incha allah. yeneen ngi ñëw yoo xam ne. jërëjëf eh, jombul danañ ci kontaan. kon ah. gan ah, barkeelu tuuti ci li yéen xaada rek. tëjee ko ko. ñetti bayit rek. li xaada mimman bil lasi rumtuhu man naa. كتاب عسيس سب دري لدن حنا لينخاد ممن بالذي رمته منا كتاب عسيس سب دري لدن حنا يبشرني باخي أناجي ودو بذكر حكيم جاء به مرسل سنا يبشرني باخي أناجي ودو بذكر الحكيم جاء بمرسل سنا محلاه musbil fay di maaraw di haba mukabadati saytaana wal insa wal jinna ilaa man loo kuni yati xatta wajan bidaadi waqla hami waxat kaana ni man na macha allah jërëjëf sëriñ Cheikhouna Mbathie borom baat bu neex macha allah yàlla na yàlla defal la jàmm defal la tawfeex bu baax Euh, am na solo lool di la sant bu baax it te di la jéggulu ndax bi ñu la yëgalee jataay bi bari woon nga xat-xat bari woon ay yitte waaye it dagg ñu ko nangul dagg sa yite yëpp ñu ànd ak ñun ci loolu kon loolu it ñu ngi la ciy sant di la ñaanal sunu borom defal la tawféex bu baax a baax euh, wax dëgg yàlla li nit ñi di wax ci yow macha allah ku ko xool gis ko ndax dañ ne lépp lu ne ci xol feeñ ci jëmm kon mën nañ ne wax dëgg yàlla li nit ñi di wax ci yow ñi nga xam ne tey jàkkaarloo nañu ak image bi euh, loolu ñu wax ci yow ñoom gis nañu ko feeñ na ci sa kanam feeñ na ci say kàddu muy yar bi ak teggin yi te loolu rek mooy li am solo. Euh, kon ñu ngi lay sant bu baax di sant it mboolem téléspectateur boo xam ne yaa ngi doon seetaan euh, site bi di Touba Argentine TV euh, ci présentation bi seen mbokk Arona Cissé ngeen ci àndal ci wàllum caméra bi ngeen ànd ceeg Abdou Ndiaye ak Cheikh Sambou di jaajëfal bu baax Alaaji Gora sekk suñu naataango nekk ci diwaan bu Argentine kon mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di dellu di ñaanalaat Serigne na Mbathie moom mooy premier jàngkat bi ñu njëkk a jël ci site bi fii ci diwaan bu Sénégal incha allah nag ni ñu leen ko waxee woon rek moom euh, disponible na fii ci diwaan bu Sénégal incha allah dana gën a lawal ay banqaasam ngir liggéey bi gën a mucc ayib liggéey bi gën a yaatu bu baax a baax kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm mu nekkoon seen mbokk Arona Cissé Touba Argentine TV euh, fii ci jumaay euh, Touba ci diggante armeel yi ak fi nga xam ne moom moo di jumaay Touba ji Serigne Cheikhouna Mbaj jànkatu xasida moom la ñu àndaloon lu jub ci kàddu yi nañ ko sant yàlla lu ci dëng nañ ñu ko jéggal defar rek lañ ci jublu wa rahmatullahi wa barakaatu.